nag li ñuy wax looy jox joxal borom borom a ngi caat yow la ñuy déglu nga expliqué leen ko nu muy demee ak fa mu jógee fa mu cosaanoo caata ngi caat ngi ziar bu baax a baax ñu ngi leen di ziar bu baax di leen jox seen wàccuwaay waaw noonu la sëñ Karim rek moo nu ñor ndax ay taalibe sëñ Karim lañ te li ñuy def lu nekk rek jaayante lañ koy defee ak Serigne Touba bu ñu teg suñuy cin ñu ñëw teg benn cin boo xamante ne soosu caw juug lay doon soosu caw juug caw juug loolu to en général ñu ci bari law ba yee koy xam léegi moom lañ teg fii nii pour fas yéene koo def ba mu yees defe ko ni nga xamante ne noonu la ko sëñ Karim bëggee ak noonu la ko maam Ami Mbàkke bëggee ñun daal ci ndigal loolu lañ tënk ay ndaw lañ nag mënuñu dara xamuñu dara waaye duñu tënku ci ndigal lekk ci loolu lañ nekk ni ñu ànd ak suñu gaay yi ndax waañ bi moom daanaka ñi fi nekk ñëpp ñun ñoo bokk nday bokk baay waa ñun ñëpp ñoo bokk nday bokk baay barki sëñ Bamba dañuy kaf dañuy ree dañuy def lépp te li ne ci ñun rek sëñ Karim moo ko def ci ñun kon dañuy santaat yàlla bu baax a baax a baax santaat tamit maam Ami Mbàkke bu baax a baax a baax mooy suñu jëwriñ tette nañu bu baax a baax a baax teg ñu ci yoon xamal ñu lu baree bare bare ñun ñu mën rek moom la lu ñu mën rek suñu yaay jooju la ay 3 heures 4 heures incha allahu rabi waaw waaw nga ñëw laal ci affaire law bay incha allahu rabi waaw. waa gan ñi comme niñ leen ko daan defalee rek dalal leen ñoom ñëpp waa ndax sëñ Karim moo bëgg loolu moo yaatu te moo yaatale ndax bu ñu nekkee ci naaj wi nekk ci taali mu tàng lool mbégteeg sëñ Karim rek la te sëñ Karim mbégteem yëpp mooy jàmm yàlla ñëpp kontaan kenn ku ci nekk yëg màggal gi waa ci noonu daal lañu lañu nekkee nii ñi ngi tënku daal ci ndigal waaw ay ndaw lañ ñi ngi tënku ci ndigal daal Amidou naa ngi nii sama frère la sama lépp la waaw ndeysaan xam nga ni ko caat waxee rek ndax ñun de lii sëriñ bi bëgg nga xam ne mooy ganam ñii nga xam ne da na fonk lool ci màggal gi ba tax bu màggal gi jotee sëriñ bi lépp loo xamante ne njaboot gi joxaan nañ ko ko soxlawu ci dara mu génne lépp def ko ci màggal gi waaye suñu borom nag jagleel ko ci jàmbaar joo xam ne muy suñ yaay ma ami Mbàkke ami la Joor di jigéen ju mën góor nekk jàmbaar joo xam ne lépp amit moom it sàkku ngërëmu sëriñ bi ba taxit képp ku muy tàggat tamit ci waañam bii la lay tàggat am ci ñun cofeel goo xamante ne nag ñu ni cofeel gi ñu koy delloo mooy képp koo xam ne ñun bëggale nga ñu sëriñ bi dag ñu fekk ci waañam bii ñu ànd koog yow waañu sëriñ bi nag kuñ ci mënta jàppale ñun mënuñu ci yow dara waaye ku ñu ci mënal tamit ñu mënal la ci yow dara waaye suñu borom def nag ay tawféex yoo xamante ne ñu ngi koy dund ci sëriñ bi muy bernde te tamit ku wax màggal wax bernde te dañuy wax jaamu yàlla ku ko woo ba mu ñëw di nga ko jox mu lekk ba suur naan ba màndi suñu borom def nag ay jàmbaar yoo xam ne dañuy taxawu liggéey bi ci yéene pas-pas bëgg liggéey bu sell liggéey bu jaar yoon ba bu ñu lay jox ñam yi sax yow da ngay sentir ni ñii li ñu lay jox seen xol nangu na ko ñu koy jox ñoo xamante ne nag sama caato caat mii xaritu yaayam muy caw jut nga xamante ne kii moom mbir la moo xamante ne waaw kii mbir la moo xamante ne feeg yekkuñu ko ba dëjal la ko rek jëwrin munoo xam fu mu féete trois heures bu benn seconde rëcc jege sil waaw kay. dëkk Kër Massar yor fa kuréelu sëñ Abdou Karim Mbacke mu sëñ Fallou ñu liggéeyal foofu ci ndigalu sëriñ bi yor fay gone ak ay tuut tànk di leen nàmbatal ci liggéey bi ngir ñu dund makaarim mu laax ci kuréel gi nekk foofu nag yaatu na am nañ kuréelu Baye Fall yi ne foofu am na kuréelu. murid yu jàng xasida am na ay soxna yu fa nekk ay yaay faal leen tàggat ci liggéey bi. gis ne tey commencé ngeen daanaka su ëllëg moo teg benn rey pour waaw loolu moom nekk na lu am solo ci li may laaj noonu dinaa ci sawar ginnaaw bi ñu sant yàlla bu baax jul ci yonant bi ñaanal mun Muntaxa mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ak kattan ñaanal bu baax sëñ am ni Modou Mbène Fall suñ borom yàggal ko fi te ànd ak wér kattan. di ñaanal suñu jàmbaar ji suñu yaakaar tey ëllëg muy sëñ Abdou Karim Mbacke mu señ Fallou ñaan yàlla guddal fanam may ko wér kattan ci dara ji sëñ Touba xasaay di waaw fii nga ñëw nag mooy waañu sëñ Abdou Karim Mbacke mu sëñ Fallou waañu sëñ Abdou Karim yi waañu yaatu la yu bari la waaye waañ bii nag moom mooy péeteem ndax jëmm ji ko yor muy soxna Maami Mbacke moom sëñ du Karim di jàmbaar lool di baram pasteef moom moo yor waañ wi teg ko nag ci loxo yi suñu jëwriñ yi ak sunu ndeyu daara yi ku ci mel ni sëriñ Assane ak sëriñ Galas Diop buñ leen tuddee tudd nañ góor yàlla yëpp di bu baax soxna Ndey Saw di ko ñaanal yàlla defal ko taw feexa saadatu daara ni Fama Diallo ak Fatma Jenn Joor Saw soxna Kura ñoom ñëpp nekk ci biir liggéey bi ànd ci leen suñuy yaay ñoom ñoo ñuy tàggat ci liggéey bi tey nag dañoo xëy teg lu juróom juróom fukki mbana juróom fukki mbana pour waajalee ko bisu safar bi tey mooy la 17 safar maam rey nañ fi lu tolloog fanweeri nag fanweeri nag rey nañ ko fi waaw ak ak fukki gileem ak juróom lañ fi rey ci ay ay ganaar nag moom macha allah ay booli ganaar la moom yaatu na lool macha allah loolu yëpp nag ñu bëgg koo waajalee bis bi rek bu ci tey ci 17 safar bi loolu lañ koy fas yéene waajee ndem sob na suñu borom bu subaa nag ñu gën a yokkaat. lim bi gën a yaatalaat lim bi bu baax a baax. waaw suba la lim bi di gën a yaatu. ndax gan yi ñu ci bari ñëwaguñu tey dañ leen di gattandoo rek lii dañ leen di koy gàttandoo waaye bu ñëwee bu subaa war a xewlu ci bëccëg geeg ngoon geeg tàkkusaan gi moo tax bànn yi dina gën yaatu. Mhm. incha allahu rabbi waaw gis na góor yi góor góor jàppale si waaw maam loolu la. sëñ bi moom daa nekk jëm joo xamante ni bëgg dara rek faaw nga def dara te buntu baabil na mooy buntu yoon wi mooy Cheikh Ibrahima Fall kenn ku bëgg dara ci kër Serigne Touba faaw nga roy Cheikh Ibrahima Fall moo tax góor yàlla yi di nuru nuru lu Cheikh Fall soxna yi tamit di nuru nuru Cheikh Ibra ngir bëgg am ngërëmal sëñ kër Karim Mbacke mu sëñ Fallu loolu moo waral takkaay gi loolu moo waral laxasaay gi waaw. léegi euh, taalibe yi ngi leen di wax rek ñun ñoom ñu war a ñëw xewlu rawatina euh, ñu bokk ci euh, li waa kër Cheikh waaw taalibe yi li ma leen di wax rek mooy li leen sëñ Muntaxa wax. bis bi bisu bernde la bisu tawféex la bisu ñaan la bisu bisu mbégte la sëñ Tuubaa bu ne maanaam ci ku ma ci jox ginaar ba gëléem ma ci ginaar waaye ci gëléem xeebu ma ci ginaar loolu sëñ Tuubaa bu ko waxee bernde moo tax bu ne bu ne berndeel na ma sama jaam yi nag loolu dafa dugaat ci beneen tolluwaay. ndax bu ñu la waxee ginaar ba gëléem rek sa xel ci kol bu fees lay dem waaye buñ la waxee bernde bernde code la dafa am leneen lu ci laxasu mm. bernde nag bu ko waxee mooy alxuraan ak xasida dafa ruuy waaw alxuraan ak xasida moom la ni bernde yi waaw kon loolee nag murit bu ci ne booy ñëw fii na ko waajal te bàyyi ci xel jàpp ci xasida yi jàpp ci alxuraan ji ci turu yàlla yi ci zikurulaay yi bàyyi werante bi bàyyi xëccoo bàyyi siisante ak iñaanante ngir boo delloo ca ndakaaru mbaa dëkk ba nga jógee sunu borom def ci yow ak yokkute ba mu reet ci yow ba nga xam ci dara bu baax a baax a baax. jërëjëf cant ak ngërëm ñeel na la jaajëf. ñu ngi si ñu ngi si ni waañ wi di waaj a berneel gan yi di wax ne lii yëpp Serigne Touba la sant ko Serigne Touba wér ndax bu nekk doon moom lii yëpp duñ ko def bi ma ko doon bi daay ñu ngi ba tey waaye sant bu wér-wér sant suñu Abdou Karim ma màq na ak laa bu wér bu wér-wér di ko ñaanal gudd fan ak wérgu yaram di ko ànd ak Mamoud Baye Fall yëpp waañ bi yëpp Magal Ndaw ñëpp ñu si liggéey bi barke Serigne Touba sant Serigne Touba bu fan yi yëpp ñu ngi si billaahi lépp ak moom la billaahi wala lépp ak moom la suñu xati xat-xat si tàng-tàng yëpp lépp ak moom la barke yàlla billaay moom rek nañu dox barke Serigne Touba ba keroog ñuy sàngoo so billaay lu ñu tere ñu bàyyi lu ñu digal ñu def billaay wallaay billaay. ñu gis ne mbana yi bëri na yaatu na. Mm-hmm, waaw mbana yi bëri na yaatu na maanaam ñu ne fu waay jullit nekk rek boo ñëwee da ngay xewlu fii mu dëgg yàlla fu waay jullit nekk rek boo ñëwee da ngay xewlu incha allah waaw. maanaam fii nii ay lion fi maanaam ay ceeb a ngi fi ay mbaxal a ngi fi yeneen yeneen ñëpp a ngi fi. waaw ay ay ay yeneen yoo xam naa si kanam ay tufa yooyu dina am yooyu mooy loolu waaw ay am nay ginaar am nay picc yëpp waaw waaw ginaar bëgg nañ ginaar loolu lépp am na fi moom lépp loo xalaat muy xar muy nag lépp mu ngi si biir yaa ma gën xam bilaay lépp lépp loo lépp dañ kaa waaj lépp a ngi si biir bilaay wallaay waaw góor yàlla ñoo gën a mën a takk pour matal liggéey jigéen ñi moom ñu ngi si watey base bi noonu si wàllum soble góor yàlla yi daal ñoo ëpp fii ak jigéen ñi tuuti tuuti lañ fi rek waaye lépp lépp rek ñu ànd ko ñu ànd ko ak taalibe waaw màggal gi ñu liñ ci mën a wax muy sant ñu naan màggal gi sant nañ si bu wér dëgg dëgg yàlla amul benn jafe-jafe ba daal lépp mi ngi dox maanaam muy muy si muy lépp muy si taal muy si waañ yi fépp lépp a ngi dox amuñu benn jafe-jafe amuñu benn jafe si waañ moom dëgg yàlla moom gis ñu si benn jafe sant rek nañ si sant sëñ Tuubaa bu wér ba ak yàlla waaw ñu ngi ngeen maa ngi dend ak sama benn maman muy mère mère Dabel waaw ma bëgg bëgg sëñ Fall ba mu jeex bëgg sëñ Abdou Karim ba mu jeex sama mère la moo la mu ngi nii. waaw kay maa ngi leen di fay. di ñaan yàlla rek Baye Karim Mbacke yàgg fi ànd ak wér. sëñ Mountakha Mbacké yàgg fi te ànd ak wér njabootu maam borom Touba yàgg fi te ànd ak wér ñu ngi leen di ñaanal yàlla Baye Karim ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla may ko wér ak gudd fan ak mucc ak mucc de noonu ànd ak Baye Karim Baye Karim daf ñoo dimbali xiifuñu maruñu raflewuñu ñeewuñu kenn ñu ngi ñaanal yàlla Baye Karim yàgg fi te ànd ak wér ndax ñun sax mënu mënu noo wax. bu nu waxee rek suñu xol yi day day tooy day fees waaw man Dabbel Tine laa tudd doomu Moussa Tine ak Boy Sarr sama papa nekkoon taaliba Serigne fallu man nag ma ñëw rek bëgg Baye Karim maak samay doom ak samay sët yëpp Baye Karim a moom ñu ngi koy ñaanal yàlla Mbàkke balla ay saburi mu ñu wàllu fu ne dëkk ci kër sax kër ga day bëgg daanu suñu kaw waaye bu ñu taalalee suñuy loxo woo Baye Karim ñaan ko ci barkeem ñu ko Mbàkke yaay sunu ndey yaay sunu baay balaa am semaine ñu kër ñu am appartement toxu ba gaaw mbàkk yàlla fi yàgg tànn daf ñuy ba dañu wallu ci kër yi bëgg daana suñu kaw ñu toxu yëpp ci barke mbàkke ba lay subal yàlla na fi yàgg mbana yaa ngi ni xéewal gaa ngi ni lépp a ngi ni gaañ lépp a ngi ni gaañ waaw gëléem gëléem yaa nga ne nag yaa ngi ni waañ waa ngi ni